Sarr jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan si séeréer rajo séeréer su sant seen émission ki di neen ngel ne Makayre Ndiaye alliance di jëm ak di koy def si bile rajo xam ngeen ne samedi bii ni passé rek ñu ngi amoon ki nga xam ne moom moo nekk Selbé Djilor mu yëngatu si wàllu làmb ñu dem fekki ko ba Djilor waxtaan ak moom lu bëri bëri si wàllu li nga xam ne moom lay yëngatu muy wëy tey nag ñu ñëw seet yi koo xam ne gis ngeen njëlbeen ba nam ko tàmbale nam ko dooree muy Malick Sarr bi nga xam ne car macha allah si wàllu riti mu ngi siy def lu bëri bëri waaye itam ñu bëri xam ko si li nga xam ne mooy instrument bi nga xam ne ñaari xeet daal xamee nañ ko si mu nekk pël bi ak séeréer bi waaye riiti séeréer ak riiti pël nag mu xaw a wutee dinañ si ñëw ak moom ban mooy riiti séeréer moom lan moo ko dugal si riiti loolu yëpp dinañ si waxtaan si ñaari version la benn bi nekk en wolof beneen bi en séeréer mu nekk une heure de temps yoo xam ne dinañ ci waxtaan ak moom li ñuy def nag tey dañuy ñëw ak Malick Malick Sarr ñu bàyyi la nga nuyanteeg ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu ci séeréer rajo waaye itam ci séeréer su sënt di lay seetaan suñu ñi nga xam ne lecteurs yeeg yëpp ñu ngi leen di sant leen di gërëm Malick ñu bàyyi la nga nuyanteeg askan wi. wax ñu kan mooy Malick.
asalaamaaleykum sama mbokku jullit yi sama mbokku musulman yi sama mbokku chrétien yi. di sant nag ñi nga xamante ne sama ñaari waajur waaw di gërëm nag ki nga xamante ne mooy borom rajo bi muy Tamsir Diouf teg ci nag ki nga xamante ne moo jóge na le nag ñëw boo fekk suñu fii muy tam di jëmag Makayre Ndiaye sant naa la bu baax a baax waa réew mi yépp maa ngi leen di nuyu ci ku ne ci turam ak santeem waaw
d'accord Malick mun nañoo xam kan mooy Malick si cosaanam ak lan moo dugal Malick si wëy waaw lii moom Makayre daanaka dama ko fekk fekk ci samay maam quoi ndax xam naa ne ci samay maam maam sax laa mën a wax ndax sama maam di ko doon def sama nijaay di ko def ma ñëw di ko def bon lii dama ko fekk def day day dund ci sama yaram yi quoi d'accord sa maam def ko doon def sa nijaay di koy def. nga ñëw di koy def. ñoom ñoo la jox ndigal li wala yow dafa da nga yeewu rek départ commencé riiti.
non xam nga rek maa maa tooñaale ci sama jaam yi nee nañu law bi moo neex a jagal xol mais li nga xamante ne sa maam da ko doon def yow nga ñëw fekk ko loolu même day dund ci sa yaram waaw mais bokk naa ko nag ci sama xol waaw xam nga ne loolu doon itam toog jàppoo loolu itam dañuy naan da koo doon rek mais. teewu ko mais man su ma ko donee itam te koo fekk ci sama xol dama koo bëgg.
d'accord alors Malick mun nga ñëw wax njëlbeen bi nan la demee woon nan nga jàngee riit yi nan nga duggee siyaar bi ba tey jii nii séeréer su su sant ak séeréer rajo ñëw intéressé wu pour def ak yow une émission.
dëgg la Makayre njëlbeen bi nag loo gis nag dina am ki nga xamante ne moo jiitu nga di ci topp ba ba la yàlla bi la bi mu lay teg feneen. waaw mais sama première ci ndig laa ndig laa doon àndal ndig seen ndig seen waaw moo nekk ndig seen fii seen mbaadaan waaw moom laa doon àndal yàgg naa moom ba ñu daanaka ay quatre vingt quatre vingt kii deux mille quatorze laa génn sama troupe d'accord mais ànd beeg ndig seen da nga ñëw rek soo boog moom wala dafa fekkoon nga doon fowantu lii nga xam ne moom mooy woy wi ngay def ak riiti non xam nga sunu première aar bi moom daanaka dañu doon fowantu nii ci biir dëkk bi di ànd nii maas ndi ñun benn maas bi la waaw ñun ñoo maasandoo quoi dañ ko doon foowe boo ba mu yëg yeneen def yi gis ñu ñuy defee ñu di ñu woo di takk ay sadet di ñu jël di ñu yóbbu ci te yeneen dëkk yi ñi dafa def noonu boo rajo fii seen mbaadaan taxaw ñoom ñu defal ñu foofu benn ci singal ñu di fa woy waaw singal boobu nag gën a yokk yëkkati sunu tur yi waaw boo alors ñu ñu ñu ñëw foofu noonu taxawal foofu tuuti ndax yéen da ngeen xëy rek ñëw fekk riiti mu tegu wala da ngeen doon jël ay yeneen loo xam ne da ngeen ko doon def ay fowukaay wala ou bien suñu premièrement nag daanaka ñëw ñoo tegu ñoo teg rek ñëw ci riiti quoi ndax ndi ci école la nekkoon te doon jàng man man dama doon sàmm.
waaw ndig daf doon jàng yow ngay sàmm.
waaw man may sàmm.
ok mais nag mujjanteel bi ndig dafa bàyyi njàng. yàlla dogale sunu naag yi am na ñu demee daal ko gars yi di leen samati man ma toog waaw di ànd ak ndiit waaw léegi nag foofu la ñu commencé nag topp aar bi boo gis nga ko ñu ngi raam ndànk ndànk rek d'accord Malick euh, sa premier jour bi nga yéegee sur chaîne maanaam bi nga yéegee ci benn place nit ñi ñëpp jàkkaarloo yooyu ñu ne Malick moom mooy woy est-ce que fàttaliku nga ko ak euh, bés ba ndax amoo woon ay trac maanaam ngay lox tiit non xam nga nag man tañax première jour sama sur scène xawoon naa tiit ndax loolu moo nekkoon sama première jour te foofu nag dafa bari woon ay nit te mosuma cee dugg ma gis gaa yi yépp dugg bi ñu ne maa ni bi may jëlee rit bi damay dox foofal la woon noonu Thiès
ngay lox te yaa war a woy waaw mais nag ci mujjanteel bi nag dem naa fa ñëwaat bi ma ne tiit tiit ba mu yàggaat rek acca affaire aar bi est-ce que yaa ngi fàttaliku woy wa nga ko woyoon non Fàtte nga ko.
wax dëgg yàlla fàtte naa ko nag waaw fàtte naa ko bu baax mais woy yi nga jàngee woy est-ce que am nga ci benn boo xam ne yaa ngi koy téye ndax waaw Malick moo la fal nag bu baax sax Hmm.
bu baax waaw am naa ci yu bëri sax ok yi nga xamante ne maa ngi leen di fàttali ko bu baax waaw d'accord alors dinañ ci ñëw ci benn ndax dafa am solo nga indi ñu ci benn boo xam ne yaa ngi ko doon wëy ba ngay euh, jéem ba tey jii ni nga mokkal euh, rajo yeeg télé yëpp am euh, cofeel ci yow waaw déplacé wu fan si yëpp ñëw di lay jàppale alors mbokk yi ñuy seetaan euh, si euh, séeréer su su sant ak euh, di ñuy déglu si séeréer rajo ñu basé wu à Londres ñu ngi gërëm bu baax a baax aussi personnel yi rajo bi ku si mel ni euh, Jokkel Labankom ñu ngi koy nuyu di nuyu Saliou Thiaw Moussoukro Sidibé waaye ñu ngi nuyu bu baax a baax aussi ki nga xam ne moom moo nekk euh, maam Ibrahima Niass Samb euh, le vieux Ibrahima Niass Samb sama maam maa ngi koy nuyu di nuyu bu baax a baax aussi euh, Mamadou Fall fàttewuñu Doudou Diouf LKJ maa ngi lay nuyu Kamboul Bass di nuyu bu baax a baax aussi euh, suñu directeur programme euh, Layti Sène euh, di ziare ki nga xam ne aussi mooy euh, suñu kilifa muy le PDG Tamsir Diouf ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax alors euh, ñu ñëw Malick euh, tey dañ ne li la fal boo ko fàttee la lay folli daf lay bett da lay bett te gannaaw woy woowu bokk na si woy wi la xam ne tey moo la fal ba ñun ñu ñëw war a jàkkaarloog yow voilà tànnal ñu si benn rek boo xam ne lu mu gàtt gàtt rek nga ñamal ñu si tuuti ñuy seet
Bukan salah masa bukan roh Bukan salah masa bukan roh Khalil sekiyo lillah inna kanuh Obulam bidul hadi salaifin Obulam bidul hadi salaifin Obulam bidul hadi salaifin Obulam bidul hadi salaifin Kami sekhairul indah ayna kanuh
alors euh, foofu da nga ne woy li nga xam ne moom mooy am am di alal di xaalis ci euh, tënk ba rek gannaaw yaa ko woy mën nga see ñëw firi ñu tuuti rek si wolof lan nga bëggoon a wax foofu message bi nga bëggoon a joxe waaw maa ngi leen di gën a dolee siyaar rek loolu boo gisee ma woy ko mooy xam nga xaalis moom euh, teyewul bakkan mais nag dafa ànd ak moom Mhm.
ndax nit ki moom buy dund te amul rek am am euh, jegewu ko rek day xaw a diis lool ci moom Mhm.
mais bu commencé di am nii rek nga gis yaram yi soppeeku ah, xel bi dal mu mën a dox lu mu xëcc rek lu mu eh, xeelu ni mën na koo jot mais boo amul xaalis rek daanaka moom dangay gën a day day mel ni dangaa feebul daal ci àdduna daal D'accord.
ni ma ko gisee alors Waaw.
ñi ñëw aussi di nga xam ne aussi sa bi nga jógee foofu ak Ndik ngeen commencé liggéey euh, ba tey nga demal sa bopp ndax Malick dafa ñëw créer groupe am wala Malick début bi nan la demee pour taxawal groupe waaw voilà ok foofu itam ba tey jëkki jëkkiwuma jëkki nii vertement groupe xam nga ci groupe ndii bi laa nekkoon mais damay nekk ci groupe bi ñeneen di jóge fale ci biir groupe bi di ma jël ne dañoo bëgg yow la ñu bëgg nga woyal ñu ah ah waxanteeg man ma wax ko ni mu ne demal man ma dem noonu la ñuy def boo affaire bi daal dafa jëkki-jëkki daal kii préparé wu ko kii dem lii Kii dem lii.
nekkul pour ñu meroo dara dara dara Ndeysaan.
waaw normalement ndi moom sama doom lay la waaw kon xam nga ne kooku dara xajul ci ñun lu dul jàmm waaw D'accord.
wallaay alors ñi ñëw si côté boobu noonu bi nga beroo après commencé nag di yëngatu am sa groupe ndax groupe bi da nga ko wutal tur wala wutaloo ko tur ba léegi ah kay euh, groupe bi moom am na tur lam cosaan lam Lam Cosaan.
Lam Cosaan.
lii moo am. euh, Lam Lam Aar.
Aar.
Mhm.
ma am Lam Lam Cosaan Cosaan.
comme ñun ñoo ànd rek boo xam boo boo tey bëgguma ñu séparé woo lool lool moo tax ma jël rythme moom quoi.
ok oui.
d'accord Ah.
alors euh, loolu nga am am na ñoo xam ne amatuñ ko ndax euh, li tax loolu mooy nit da nga ànd ak nit ba muy métti nga dem ba nga xam ne commencé nga gis sa bopp si mbir mi nag nga fàtte yooyu yëpp euh, ngor def si am solo Wallaay.
alors euh, ñu ñëw si Malick euh, après ba nga fa jógee est-ce que mos ngaa génnee benn single euh, wala album ci sa dund waaw mos naa génne ñaata single génne naa euh, ci benn année bi daal euh, année bu nekk daal génne naa ci ñetti ñett.
ñett single waaw.
mais génne ko album boo xam ne non génne gu ma am.
mais lan moo waral loolu ah ñu ko ah xanaa ñàkk moyen rek est-ce que ñàkk moyen la wala ñàkk am woy yoo mun a génnee wala non woyi moom xam naa ne moom mënuma la wax ne du ñu jeex mais non yaakaaruma loolu moom woy moom tere teyewuma daal Hmm.
waaw woy yi yëpp a ngi fi tey boo amoon ko un promoteur ku ñëw producteur Voilà.
de dañ lu mu soxla si ay son dañ ko génne mën naa ko génne loolu moom yàlla def na ko séeréer rajo ngay wax de waaw waaw bu baax a baax te xam naa ne ñeme naa ci li may wax toog ki ma doon àndal sax xam na ma bu baax muy dig seen d'accord Voilà.
alors ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy ba léegi si Malick wax nga ne tey boo amoon moyen li nga bëgg a def yëpp da nga ko def bu ñu waxee artiste dafa am ku koy bindal wala koo xam ne mu ngi si gannaawam di koy jàppale Malick mooy demal boppam si lépp ci wàllu mbind mi ndax nag morceau dafa am solo nga bind ko denc ko boo paree nga dem protéger ko BSDA tey BSDA amatul SODAV moo am boo ko fa yóbbee ëllëg keneen ku bu ko jëlee yoon tegu si kawam ndax loolu Malick mu ngi si wala nekku si wala loolu moom sant yàlla ndax euh, xanaa dangaa bëgg euh, wax bi gën a leer ci sunu diggante yi euh, nit ñi digg euh, di ko dégg quoi mais nag sant naa foofu yàlla ndax euh, ma kay rek dama lay gën a sant waat sax ndax boo gisee ma am sama carte soda bi yow yaa yow la ndax euh, bi ñuy gars yi di jëm fële Fatick di ko di di ko maye foofu yow yaa ma woo téléphone ne ma ndax maa def am nga carte SODAV ma ne la déedéet mu ne ah gars yi dañuy dem Fatick de tey ngaa dem foofu nga mën a déposer foofu pour nga am carte SODAV waaw ci laa dem nag profitoo ko daal ci sun eh, ñëw ci sunu rajo bi fa la fiisal mbaaram wax leen ñu bindal ma attestation pour ma mun a dem foofu pour gars yi mun a xam ne am mos naa jaar ci Ci rajo, très bien.
waaw voilà Mhm.
ma dem mais loolu sax aajotul dañ ma ne jox ma dentité bi rek ak kii bi ak sa numéro ak sa photo ma def noonu ñu jël ko ne comme mënatuñoo régler de bu ñu demee fale dinañ ko déposé daal waaw ci mujjanteel bi nag ren gii yàggul a génn sax fan yàlla rek la génn.
léegi Waaw.
kon yaa ngi soog a doon artiste bu ñu reconnaître voilà maa ngi ciy doog a egg si nag.
d'accord woy yi ngay woy yi bëgg naa nga ñëw si ndax da ngay tëdd ba guddi mu ñëw wala booy euh, amee événement la woy yi di ñëw nan la sa woy di ñëwee waaw loolu def may dikkal boor bu ne man damay tëdd guddi woy ñëw fekk si ma mën nañu di wax nii sax ci sunu waxtaan nii nii mu ñëw waaw mën naa di dox nii mu ñëw moom daal amul arrêt ci sama diggante ak moom.
léegi bu ñëwee yow nooy def pour denc ko man bu ñëwee ci man la damay jël sama portable bi arrêté ko pour du dem su ma amul ni ma ko bindee damay arrêté pour téye ko su ma demee ma gën koo defar waaw noonu lay def.
d'accord Oui.
alors mbokk yi ñi ñuy seetaan euh, dégg ngeen euh, li nga xam ne moom la Malick wax tey euh, dese nañ fukki simili ak juróom pour dugg ci version séeréer bi ndax nag ñaari langue la séeréer rajo la ak séeréer su sënt dafa am ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers ci monde bi am ñoo xam ne ñu ngi ñuy déglu suñu plateforme boo amee sa téléphone boo tapee séeréer rajo rek da nga am suñu plateforme foo mun a nekk ci monde bi da nga toog di ñuy déglu waaye itam boo demee séeréer su su sënt lépp loo xam ne suñu vidéo la mu nga foofa Malick ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy wàllu woy yi ndax Malick mos nga woy ba nit daanu yasi wala fan su ñëw fekk la fa nga toog mu dóor la ndax kontaan wala mu ñëw daanu sa kaw ndax loolu mosoo koo dund.
loolu même fan moo tagul moo tagul semaine sax tas na sama programme. gaa yi Tas.
waaw ba mu tas noonu. gaa yi ñëw di daanoo ay yasi ñii di xeex ndax ndax li ñuy def noonu. billaahi walaay asim.
mais lan moo waraloon loolu.
ah man xaw ma ci seen xol yi lay yëpparoon ma man daal xaw ma daal nu mu demee noonu mais.
mais est-ce que nekkul Malick li muy sangu xar ba fuufa yi sëriñ ñi ko téye.
ah loolu itam da cee bokk de.
Moom di ba- Moom da cee bokk.
alors Malick dañuy ñëw foofu.
ah ndax euh, sa sa xarit mos naa waxtaan ak moom émission dafa am ñu ko mosoon a téye téye bu garaaw muy Ndiig Sène ndax yow mosoo mystiquement benn artiste mosul laa téye wala keneen mosul laa liggéey ba mënatoo euh, liggéey li nga xam ne moom moo nekk woy yi nga doon mosoo ko dund.
non wax dëgg sant yàlla daa mel ni daal woy yi ma may woy nii bi ma ci commencé ba léegi dara mosuma cee arrivé moom pour ma di ko xool ci sama bopp daal yëg ko ci sama yaram mos tam waaw sant yàlla bu baax a baax.
d'accord bilaay.
fi ñu ñëw mooy euh, yéen artiste séeréer yi tey séeréer euh, rajo boole na leen ngeen nekk benn ndax euh, ba ngeen créer benn association bu ñuy wooye Onano Felu si moom seen nekk seen président Euh, noo gisee mbooloo googu
mbooloo boobu de lu dul gën cee kontaan di sant nag ki nga xamante ne moo tax ñu booloo foofu muy Tamsir Diouf maa ngi koy gërëm bu baax a baax ak ñi ma seqal euh, rajo bi waaw ñoom Tamsir Diouf Tamsir Diouf di jëm ak Moussa Koro Sidibé lay ci seen pa Ibrahima Niass Samb Ibrahima Niass Samb maa ngi koy gërëm bu baax a baax gisoon naa ko ci ci laajte bi. waaw maa ngi leen di sant ak artiste yi.
ñoom Jokel la ba ngoom waaw ak pere sunu président bi Simon Sène ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax diggante naa ñaax foofu nag euh, ndax lii moom dafa yombul Euh, ñu toog a toog boo lu mel nii daanaka mën naa ne artiste séeréer yi yëpp daanaka bareetul daal ci ci ki nga xamante ne bokkul ci groupe bi kon loolu euh, nit bu la ko defalee da ngay xam ne kii euh, def laa bëgg dara tax mu di ko def lii moom lu dul ñu gën a góorgóorlu rek sant yàlla bu baax a baax yàlla na mu gën a jëm kanam daal.
alors euh, noo gisee aussi euh, séeréer euh, ressource sënt ni muy gunge artistes yi di koy gunge ay doomi séeréer si wàllu sponsorisation boo seetloo Maada Sinik sponsorisé nañ ko deux cent deux un million deux cent jàppale ji ko ko ñëwaat euh, buuru Thierno Ndaw ñu jox ko cinq cent mille jàppale ko si gàmmu kawoon gi ndax moom moo nekk buur kawoon ñu defaat ko may ko Géej Diouf bi mu amee activité ñu ñëw dimbale ko deux cent cinquante mille Simon Sène war a dem Sorano ñu ñëw jox ko un million Marie Ngoné Diome dem Thiès organiser fa ñu jox ko un million tey Latir Faye Ngourane moo si mujjee ñu jox ko benn cinq cent mille tey loolu ab rajo di koy def ñëw dimbale la sa communication yëkkati xaalis boobu jox la te nii nii ñuy doxew dese na ñetti artistes yoo xam ne danañ leen sponsoriser ku si mel ni ñoom Sidi Kordior ku si mel ni ñoom Polias ak ñeneen ak i ñeneen Euh, loolu rajo bu koy def te nga yàgg si aar bi est-ce que mos nga gis rajo wala télé bu nekk Sénégal bu mos a def lii.
ah wax dëgg yàlla bu ñu waxante dëgg moom am na rajo yu bari yi nga xamante ne dama fay dugg ñu di ma invité nag mais nag wax dëgg normalement yi itam xëy na dañuy doxal nu ñu war a doxale mais bii moom sant yàlla bu baax a baax nañu gën a góorgóorlu ñi nga xamante ne ñun ñoo tax rajo boobu ñu samp ko waaw euh, askanu séeréer surtout ma artistes yi dañuy war a góor góorgóorlu gën a jàppalante gën a xam ne nag kii tax ñu eh, sampal ñu rajo bi bëggul ñu feete ginnaaw rajo bi daal macha allah yal na ko yàlla gën a yokk rek waaw alors bokkoon nga si compétition séeréer héritage muy casting bi ñu doon def yàlla def jàlloo si à 100 pour cent. loolu après mën nga ñëw si film bi nan nga ko dundee ak lan ngay préparer aussi.
non xam nga ne nag bërëb boo gis rek am na dina am ku daanu am ki nga xamante ne dina am ndam mais nag paasewul da ngay ngembu waat jëlaat sa programme gën a dalal sa xel loolu amul benn problème nee nañu yoon bu jeexul daal wax.
waaw monsieur Dieng waaw.
comme ni ma ko waxee rek nga ñëwaat ak ñun si li nga xam ne moom moo nekk lii nga xam ne tey da ngay gis artistes yi. lépp loo leen wax rek ñu ne mun nañ ko mun nañ koo wëy ci wàllu cosaan séeréer nag dafa am ay cosaan yoo xam ne mu ngi am am ñoo xam ne mokkal nañ ko lool di koy yëngatu waaye Malick mënees na cee ñëw ci biir loolu waxaat ñu aussi ci ban côté la gën a nekkee en l'aise buy wëy voilà ok Mankayre côté bi ma gën a mokkal nag mooy côté li ñuy naan op kii njéeg njéeg njéeg njéeg waaw njéeg mën nga see ñëw la mooy njéeg njeeg nag daanaka booy woy njeeg day jële ci booy yeegal ay ceeb wala muy wàcc si ngeen di ko teeru nii gars yi tegkat yi yore li ñuy naan xiin waaw moom moom lay lay tegal daal maanaam bu nit di seet buy wàcc si wala bu mel noonu buy wàcc si wala ngeen di ko kii mbaa mbaa ngeen di ko gànnale daal.
koy gànnale waaw voilà.
ok waaw alors est-ce que est-ce que tey yeneen kii aussi dañuy gis ñoo xam ne si wàllu dëj. séeréer bu njëkk daf doon dëj ak kii am côté boobu noonu wala lël xool nga si wala.
ah loolu nag aayu ma ci lool mais dem amoon naa ci dara dara. na ko wante nag taxul ma aay ci lool nag. mais bu dee côté mbayit wala njeeg moom. wala li ñuy naanu minam.
miinam loolu yëpp dañ koy suy waaw.
ok waaw.
d'accord alors si yooyu tànnal ñu si benn boo xam ne dañ ñu ko kiyal bala ñu dugg partie séeréer bi. jërëjëf mbokk yi fii lay amee ci séeréer rajo séeréer su sant seen émission kiri neen xel ne Makayri Ndiaye alliance di jëm ak di koy def tey jii nii nag ñoom artiste bu mag koo xam ne boo ko déggee muy wëy boo ko gisee muy riiti nga xam ne li muy def mokkal na ko lool xumb na dagan na muy Malick Sarr Malick ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy say projet Malick lan la bëgg tey ku ko doon dimbale dëgg dëgg dëgg si ban fànn la koy jàppale ba Malick yeggali li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam si wàllu culture séeréer.
waaw jërëjëf Makayri waaw côté boobu de maa ngi lay gën a sant bu baax a baax ndax boo gisee sunu mbir mi ba tey daanaka demewul ni mu war a demee daal dañoo xaw a manqué lu bëri lu bëri lu bëri mu nekk. affaire matériel yi nga xamante ne Malick bu ko boole woon ak riiti bi day gën a mën a dañ koy gën a mën a dégg lu daal ni ma ko mën a waxe ak buñ la oowee itam ah sa liggéey da ci gën a feeñ daal waaw te loolu yëpp moyen boobu yëpp daanaka amaguma ko waaw mais moo nekk sa bëgg na bokk na ci sa bëgg bëgg bëgg bëgg xëj na nag maa ngi ci yoon di ko jéema lijjante di wut man itam ba ñu may itam ku ma ci fekk si di ma dimbale waaw loolu soxla naa ko lool.
d'accord alors Malick tey lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu aussi si séeréer rajo ak séeréer su sënd wax nga say projet ba pare mais aussi mu nees nga ñëw ñëw rek fàttali ñu tuuti rek Malick maanaam ndax. balaa 2023 bi wala 2024 bi di dugg dinañu mën a indil benn album bu nekkee ne am na ku ko jàppale.
waaw ok mag foofu mag di mag foofu moom ba tey itam maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax ndax am na gars yu bari yi nga xamante ne ah bu ñu jëlal jëlagul engagement boobu itam ñu ngi ci seen xel daal mais nag.
ah am na ñu lay dig.
waaw am na ñi may dig. du doon album nag mais dañoo bugg a dañoo bugg a defal single rek waaw ñooñu ay single lañ ma bugg a defal ku ma gis itam mu bëgg maa dimbale pour album yi itam boobu laa gën a moo gën a nekk naturel bi.
d'accord alors single yi nga def yëpp amul benn boo si def clip.
non non.
ah bon ñoom ñëpp defuma ci clip ay photo rek laa ci def noonu.
def montage bi.
waaw montage yooyu.
ok alors ñu dem si version séeréer fogole naa nangilo xay ne émission nun kiri nengel ne makayre ndiaye alliance di jema kap yan xaye koy in ɗeytiiɗo xe andoona yee ten refu koro salmakoor te refu xa andoona yee no cosaan ne xe yo'nooxa teen ka machallah a saqu riitile koy a gefa saax le fop o xaaga ten ref Malick Sarr Malick i nqaƴong simnir fo fogole andoona yee a mbee nangiloxang na séeréer radio a seetanang na séeréer a sus sant iyo mo adam sante a roog o yaal rek fo waajure ik rek yasam roogo yaalo xe a xare den aljana ram tige yitam kaane ko lu jin njaat ru ret ma bottolu meke toluma yitam waajur ik gen mi gaaga den taxu maxey sante a den bo paam roog Makayre Njaay yitam wax deg parlo o lak ram ge ama baftoona a goɗa lool mais o sagu ino taxu gar mene wo itam wax deg joka njal yasam rooga moƴga damit sante a o yaam mbir ne xe andoona koy o ten nakinam chaque jour e so o ten o itame o in xa ɓay xa ɗakum pour cosaan in a waaga yoɗu fo aada in a yoɗa cosaan no seereer a yoɗa aada no seereer so a damit artiste seereer ɓe kono xaaga waagnuma week te refo Tamsir Diouf e Makayre o fadango o simnanaamo Tamsir Diouf bo temay sante a num bo paam roog e maaga mbuj joxaten simin o fogole refna kam saax reew moon ne fop simnaami den i xaƴiimo leŋ koy sante aami den bo paam roog itam den we nanal gir we a nge o geeki i mbi'e tefel den lool na xeeñ den yaasam roogo yaal oxe fi itam bo gute ñaanane in ten aarne roogo yaal oxe ɓiso in ta rek fop waaw im waaga gar fa in wala in keek andoona yee ten o yo'nooxa te ref musique fe o fi'a sama commencé tout fo xa ɓekong ten i musique ne de waagangi lay no xa teɓandongi commencé tin bo feɗ reke i ndefna e no o koor oxe na layel ndiig sen a gen fi sen mbaaɗaan ini mbog mbogo quartier leng ne daanaka rek goɗatire lool quartier ke mbogeero mais saax le daal ka ƴofra daal i mais nag wax dëgg no jaajtinaa i commencé sin bon neke i commencé na ndetate maak e ram ki mbi'an mbi'ano laytan ngook ngook i layoogna sax Mhm.
mbi'anon pingen in laqeendi de bo njet ye njet yo e lakasa ngotate i na ɓise in saaxa koɓ a kumne a sareta ngara ɓise in saaxa ge e ndiiki koy i ndetay go bo digante ne radio fiisen mbaɗan a ɓiɓɓiid e a njango in te yit i mbi'o te o singal Mhm.
singal olaaga a taxa konagen ina moƴa suur Mhm.
e bo xane koy wax deg i mbi'ee bo neeke i tagtoor ne to tagtoor in itam jam sooma reeku e xëja rek kaane bo gumayna baxof rek e D'accord.
waaw est ce que waaga ɓaata garfa in kima ke nen ngaste boona bo rooga fi xaye o ref o kiino maak o kiigimo maak kam ceereer ne a kima kaaga ngastegoona est ce que a jega kima ka damoona xaye wa andoona yee waagan ino wetan wena nangilooxa in fo wena andoona yee a mbemoofa a seetaanaayo iyo a jegay kim gim kum euh, instant naga andona mene soga commencé a kim raga yekini oxey mafrel tej oxey ten jom ne e euh, um évité el radio fisel mais kimalem jagle tuma yekini de kam warna gim Mhm.
e xaƴa wagnuma lase koy fote nanin mais an gimin e raga yekini Mhm.
oxey mafrel te euh, ref camano ge te mafra fo mbala e mi koy um jagle kitna kima legi a ten buguma yoot mene aca bisimila i ndeta kima
yegele me gomne fanna jiga mana o bil sere la jiga na yegele me gomne fanna jiga mana o bil sere la jiga na ya me yo me gomne fanna jiga mana yo bil sere la jiga na Mule baba na tole ala manyara inga manam yo milo dere rajika na mo Ge mulyo bala me ala mata do jika manam yo milo dere rajika na mo
jokonjal o morceau laaga o gimteena yahya diop yekkini ke ref oxa andoona yee oxu refna o ɓiino seereer rek jegaano ten o ɗaayo maak Voilà.
o gimin to ten andee sax e gima a kim ale xa pousser ong bo o gima yekkini i raga ka refo ɓino sereer o xaye andona ka rokno tiga andona ka ref cosaan i a ref cosaan no sereer deg deg deg to sereer we a jig me ten ndoon ne njom bo te ref tig maadnu no den i nge o ɓiy in o ɓiy sereer a fi'an te ref gaare ina ge andona ka tuuse xeeñren ge o yegini te felam lool e mi koy waag in ma ɓaat lakas nda waag an i ɓaat xalaates na a kim bo waaga ngeerna lem bo adna fo panani ni tam laa fekke bo pod ne ke andoona te rooga dogalu rek ndeeres foten d'accord e alors no kima ke nen gima gima ten a yekkini gima kima moyu ndax waaga gar fa in o lay in a kima ke nen nama gartaana wo euh, pour ke tubaab a xooyta inspiration nam o jeg tan wondoo xay bo o yeng rek a kimale a gar o xot xes dimik wala ka o refa no no na ka- na- no no- no programme ba a kimale gar nam nama kima ke ngartaana wo bo o waago o moofa suta a kim ok makay de gaaga yo le mbaa ndigil maaga a kimage daanaka coté nu refna te ngar taxamoraam waaga ma ñaaƴa te ngaro no mi waama wondoox ne ke te ngaro waama moof te ngaro e wagami jala lakati tengari ndiki a ngaranga namon tamit ka kima kaaga bo waag no gim akimage kam a soɓangeram wagna um waga jeg kayit ne bintan mana kam hota portable ne mi um arrestre in um fiyanga naga bo moofma xan ɗetatin na te moƴna jage tum xefanin bara xen ka nda voi naga fo ne tonen kimale garta fop kam teye kan d' accord alors euh, leeg-leeg kaaga a gigim we a njeg mbuud a njeg programme o ga fans ke euh, we andoona yee aussi xan o gim bo cerer den a a sum hein, fo oy fe sum jir de ngara yena yasi wala de mbokango wala de yena to kok mosino ñoow no ñoow bo fee de vague sax fadavule semaine fee de vague rek ñoowa mo laaga ñoow um jig programme nem su ye kiɓma neeke rek goye ka mujata yaq no fadee daanaka jimim ma a kima tadak sax weeke yene yasi weeke kisdee lang gu refna te mbi'e bo daal o yaal mbinna daal a mujalem dene gene daal waagkate rek e naaga est ce que tiga refeere a jegay ka o duqa bala o reta no langol a kaaga tax ngor a adam xeƴa waag ke ñak
alors i nga- i ngar maaga bala o suura yaam artiste mayu a nanga den o o daawa o ref artiste gima leeg leeg o kendof artiste a gara fiyong yoqe bo o jeg teen problème gim kiro wala o jeg jafe jafe kaaga no côté terre na a piyel ka andoona yee ka den mbiyango teen ndax wo mosino ñoow no ñoow non maaga moom ma kay re wax dëgg sant am ma roog Mhm.
Eh, depuis naa commencé ma ngeege boo xam ne moom ma si ma jig te lontu lontu mbalaam jig te o njeeñ no diw kaa fi am tig boo xam ne eh, maaga moom wax dëgg sant am ite rooga paax njigafule no mi d'accord Eh, eh.
alors i mosa moof a jego koor o paax xa andoona yee a jega laamitna te mos ina inu laamta wo itam bugongo ten o laamtiid i nga'a i nuno we na yo'nooxa no riiti ke moƴna teen o may na a kim nuun goor na njaaɓana nuun xa taxu rew njaab ke a kima kaaga
e maaga yitam kaane mbo o dokaame xano dokatin maana e re i mbi'e répétition nen in kaset album nen ndiig Mhm.
ne tegim ti'na sida faaxe mi fo ndiigi mbi'in ndaa maaga rew kaa njaaɓanoong in maaga non a jega kim nuun ka andoona yee rew njaab kirano mais ka- i i maaga kam layala layatan maaga rew kaa njaaɓoogoma mais a refanga nena kim ge o moƴo mayole fo euh, goor na xa taxu xa taxu kaaga Eh, xaƴa o tew warirano jaab wala aha o tewa warana ja sax ram o ɗetan sax voix ger ɗik ger a yoonange sax xana xana la jafit nen geeke certi waaw o ndik te nen tewo kon a garanga xana moƴa fel i nda in in ki samtino ga maak wa mbi'oog nen saaxa mais i naranga ndok studio moom il faut i njago tew won ñango tew i ndaa a jega kima ka andoona yee o ga'anga i ndaamtongo ten parce que goor denoom i njaaɓeegun Wala.
kaaga taxu nuno maaga nu ndam I ndam maaga rek Ok.
nda jigey ma i naranga jof ma yet rew ka ngara kamne i nu mbuganga no moderniser iyo nu mbuganga no ndefar daal bur ɓaye mbaag no nangiloox fop a mbaag nangiloox ki jaga len d' accord Ah.
alors i ngar no ke andoona yee aussi ten ref a kima ke ndax album podnum sutafulo e suta fulam xa singal xa ti tadik dal sutam den Jegiro album?
xa singal xa jegiro album non non jega fuli Single- jeg- xa single fiyo.
singal rek d' accord e waaw a singal a qeemayo trop singal ale moom xa tadak sooma def e ti tadik rek o fi alma d' accord alors i ngar no ke andoona yee ten ref aussi menu mbokatooxna te ref na Seereer Radio artiste ke fop a ndef maaga euh, bo Simon Sène ten refu président nuun xaye yooɓee aussi pour nuun fop nu mbokatoox nam ga to a pokatooxaaga mbokatoor naaga dem refangeer na moƴo sant o roog rek e ram surtout man koy o kiino xe andoona ye o xaay refna ma lenga andeerna a gara a- a fi tiganam euh, groupe um groupe raaga te fokat te mboolem o xeet no seereer fop euh, o xey kamane ram saafeen wey te morola wey te fop siin siin kon a fokatande in a xeet in a fokatan euh, artiste seereer de tout kamane a moƴa ñoowin cosaan no seereer fo aada no seereer o xaaga yitam lu jiin njaak o xaaga waaga ndagidin roog rek o i ngatitanoor yasam roogo yaal oxe moƴa yok a moƴa fi anen yokkute ko in fop yegno e sante a yitam o koor o xaaga ka wara feeñel te refo Tamsir Diouf fo yoonum fop we andoona de mbog yo calel ke ga fottina ndije magin Moussa Koro Sidibé Layti Sène Ba Jokel Laba Ngom.
Ngom Jokel Laba Ngom fof ko we andoona sax jotiima mero dafu la kon den fof e bugma ne e meri simna fof moƴa ñaax den e andoye ge in ci'eene yooɓee Alors- fatindamin xaɓay xaɗa a jegan compétition na fog'oona te ref casting na andoona yee seereer héritage ten atum casting naaga o fog'u no giigim we ndet'ina participer roog a fi' sourire o est ce que waaga ngar fay no film ne nama retu taxu iyo maaga yitam fo xam jigim teritrik jigim tege ɗoma xamina maaga kam wara anden mbirnu ma na maafrel xano maafamba o maafel maaga kam wara xotatina paangel faan watin bo teg fi bo te xen um geeno commencer atin décourager um ten dara koy kasaf we xaye i soge commencer o sante o rooga paax mais simna yitam président in refna euh, simon sen fo mbolem wete fog tina fop arme maxey simna den xaƴimo leŋ ka lefo koy o limare ko juum nda den fop o i simnum a paax a paax alors bala i continuer an sax a jeg laamit na andoona yee ka te sutoox ku no yifes rek mais waasnooxa ten te ref groupe le andoona yee ten nu ngennu nu yoona ten a jeg wa andoona yee toujours nuna yoona wo o ref leader vocal ne groupe laaga est ce que waaga gar fa in namanno e fo aussi we o yoonta ten iyo meme yonta te ɗik weke yontuma o xeeke nguy jonane e o xeeke ne el deke waali diouf in fop saax leŋ re i ngen yo e wa a jigay koy manam we ndef ne saaxra bo xane um jig a programme sax um xoya den téléphone xane xa i jig me i nget ne um lembangan den te soɓka moma o xaaga pierre sarane e o lengoxe papa sen e a jige o lakasit mbay dioufane e a gen ta koñalan in rek e fodde ke jo moom daal daanaka é- équipe ne mo tey daal i d' accord waaw xaye daal oxu engagé oxonga te mu xewan ref mo rek lem ma den rek in fop in rek anango Iyo.
a nangilooxango aussi i mbug rek o laya in oxu dimle'eegonga xaye oxu damteegonga xaye no cosaan ne pour o waag o continuer mission no côté luma waarongo o dimle in cosaan ne anda mete ref na daanaka ka ñoro in ka ɓelo in yot o neew doole in koy o lay xottina rek mais o kiina warna moƴa waaga gum to in bo i njigo te o yeg no xo in te ref matériel dongi manqué yo in mete refna i njeg ange matériel mbokatno fo o rit len ino leeke hein kon eh, andami xana moƴela fela waagan algidoox daal e xaƴa ge i suye e koy a jigay maake te ref ten askan ne koy mais nak a raxanga daal xana moƴa fa Xana moƴo fel daal.
i xana moƴo fel Alors.
E, nda moyen rek o ñak moyen ole dama xam Mm.
mi koy maxey ten tagale maxey jeema nda um geayitoxe ɓataxamina a naax itam rek moƴataay d' accord alors Malick euh, waxtu fee a paga tak i ngidmanga paax a paax i layong rek nam ga to xaye sereer radio a déplacer oxa gara xotidong euh, meek andoona yee o Ndakaaru yo i soɓong no mbineek andoona yee kar machallah euh, waaga gar rek fo we andoona yee den na nangilooxa o laya in nam ñëw to xaye euh, comme neek iyo di jemak tefangerna sante an bopan roog E, yasam roog saqi ndab do roogo yaalo saq ndab do ramoxe andoona ka baf a fi'anan promotion pour euh, geno euh, laltin wa askan ne fop a waagna je ba a moƴa waaga content no wo o yaalma bafit ma lenga anderna a gara ñaaƴa ñaaƴ ba a soɓidong cafagel wo o xaaga atro o ngid mum roog rek o waagano xaƴit te yokanin moom mu tëbug na fan rek yaasam roogo yàlla a fan noon ma ma kayre njaay e um sante a roog itam kiino xe andoona yee itam o ten o liggéey taana kinam chaque jour te ref o Tamsir Diouf maxey gid man bopaam roog e sante am fop nun tout wena jale kam radio euh, seereer radio fop nga xisidna ten sante in fop xaƴiimo leŋ aca gidmi we andoona yee aussi ya émission ne dameena o weke andoona yee itam andoona de moof taxamo me euh, Ousmane Sarr Mhm.
euh, Ibou Faye fop maxey simna den to moƴa sante a den itam ram toujours it ka ngungaxamo rek a ngelalaxamo nge'a mm, o xene gete layoogna no mi xa toor a ɓekaxam mayu kam xooxes moƴana utilise o tano calel alors euh, o fogole na seetana in émission na a faga tak i cooɗa nuun rendez-vous ko artiste fa lakas 14 heures xana doone inchallah rabbi euh, wiin we andoona yee wena nangilooxa nu mbaaga yoon fa in na Seereer Radio Seereer a sant te ref u makayre ndiaye a yoon u fanunu émission kirine ngel ne ne i mbika rek i ngar koy a sooxir fo fogole fo o morceau le la andoona yee ten Malick Sarr a ɓisiid ka rek i lay nuun ee aca oxu refna no saalof moof me moofoona yo'nooxa oxu andoona yee waxey nangilooxa itam waaga moof me moofoona nangilooxa a paax a paax aca Malick Sarr a ref u fa makayre ndiaye
Thank you, my Lord.